chère population de Mbacké. Permettez-moi avant tout d'adresser, en cette période de ferveur religieuse, mes respectueuses salutations inconcis comme on ziar au Khalif général des Mourides, Serigne Mountaga Bassirou Mbacké, à l'occasion du Magal de Porokhane prévu le 5 mars prochain, dédié à la sainte Sokhna Diarra Bousso maire le Serigne Touba Khadimou Rassoul. À travers ce saint homme, je voudrais saluer toute la famille de notre vénéré, Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké, ici présente, qui a bien voulu, par sa présence, donner un cachet particulier à notre manifestation. Mes sincères remerciements vont à l'endroit des populations de Mbacké pour leur forte mobilisation, car malgré les nombreuses occupations, elles ont tenu à répondre massivement au présent, à la présente cérémonie. Je voudrais associer à ces remerciements l'ensemble des autorités de la région de Diourbel, avec à leur tête le gouverneur de la région qui, avec le préfet de Mbaké, ont fait preuve d'un engagement sans faille pour la réussite de cette manifestation. je confonds. Dans le même élan, Monsieur le maire qui nous accueille aujourd'hui dans cette chaleureuse ville de Mbaké, le président du conseil départemental, l'ensemble des élus nationaux et des locaux, ainsi que tous les responsables qui sont, nous ont honorés de leur présence cette manifestation de lancement. Monsieur, Madame la représentante du ministre, Monsieur le représentant du ministre, honorables invités, si nous sommes réunis en Baké ce matin, c'est pour lancer de façon progressive le basculement intégral de l'analogie vers le numérique dans le mode de diffusion des contenus audiovisuels. Aussi, sommes-nous là pour répondre à une invite de M. le Président de la République, son Excellence Macky Sall, de procéder à un basculement numérique intégral durant le premier semestre 2020. Il s'agit, en d'autres termes, de l'extinction du signal analogique des télévisions sénégalaises qui sont désormais diffusées en mode numérique. Cette manifestation, cette transition vers le numérique est la conséquence de l'évolution technologique avec l'avènement des technologies de projection de données et de compensation de compression numérique. Elle ouvre de nouvelles perspectives dans la façon de communiquer et de consommer l'audiovisuel avec plus de chaînes, plus de programmes, une meilleure qualité et plus de grande ouverture. Le passage au numérique signifie également le renforcement de l'identité nationale avec la créativité des contenus locaux favorables à une même prise en charge des droits et des droits voisins ainsi que la promotion de la diversité culturelle. À cet effet, j'invite les éditeurs à se battre pour relever le défi de la qualité des contenus. Gagne d'une meilleure, gage compétitivité des chaînes de télévision à l'ère de cette révolution numérique. Ainsi, mon département travaille à dessiner une nouvelle cartographie du, paysage audiovisuel avec un accent particulier sur la créativité d'un grand nombre de chaînes, de télévisions et de radios thématiques dans les domaines tels que l'éducation, la santé, l'agriculture, le diversement ou le sport, entre autres. Les Sénégalais, au-delà d'une nette amélioration de la qualité technique, du confort de l'écoute et visuel, auront droit à un contenu audiovisuel de qualité, diversité, diversifié, adapté aux nouveaux modes d'usage. Désormais, dans leur exigence à plus de programmes de qualité, ils auront accès au-delà de l'écran de télévision classique à tout un éventail de plateformes et d'applications numériques. C'est par le défi des contenus également que les éditeurs sénégalais vont contribuer à rehausser l'image de notre pays à l'international, à travers une exportation Internet de notre patrimoine culturel. Mesdames et messieurs, chère population de Mbaké, la cérémonie de lancement du basculement au numérique revêt également en un sens particulier pour le développement de l'économie numérique de notre pays si cher à son Excellence, Monsieur Président Sall, président de la République du Sénégal. C'est le lieu pour moi de féliciter remercier tout très sincèrement ma très chère collègue, le ministre Madame Ndeye Tiké Ndiaye Diop, chargée de l'économie numérique et des pour son leadership et son engagement pour mise en œuvre la stratégie numérique Sénégal 2025. votre présence ou la présence de vos représentations à nos côtés ce matin est le signe éloquent d'une grande solidarité gouvernementale telle que prônée par le chef de l'État pour relever ensemble les défis d'un aménagement numérique plus harmonieux et pour notre cher pays. Je me réjouis ainsi des synergies déployées par nos services respectifs pour faire de l'accès universel au service de télécommunication une réalité dans les zones encore peu ou peu couvertes du Sénégal. L'initiative du Fonds de développement des services universels de télécommunication de donner gratuitement des décodeurs aux populations démunies et à saluer et à encourager. Car la fracture numérique est également au cœur des enjeux de cette transition. dont elle contribuera à la réduction en améliorant notamment l'accès à l'information sur l'ensemble du territoire. L'avènement du numérique dans le secteur audiovisuel, grâce à une économie du spectre de fréquences, a aussi largement contribué à réaliser la dividende numérique. Ainsi, les fréquences analogiques libérées au regard du potentiel technologique et économique, ont été très précieuses pour le développement de nouveaux services par les opérateurs de télécommunications. C'est pourquoi, dans le cadre de la valorisation de ce dividende numérique, je voudrais inviter les acteurs de ce secteur à une large réflexion sur les possibilités d'accompagner les entreprises de l'audiovisuel notamment publiques, pour être davantage à la hauteur des attentes du public sénégalais. Mesdames et messieurs, honorables invités, en 2014, le Sénégal avait pris part, le pari de confier à une société nationale, à travers une concession de services publics, la construction d'une infrastructure de télévision numérique. La société Escaf Telecom, concessionnaire de ce projet, à réaliser Molles Wallace, les différents objectifs qui lui avaient été assignés, notamment la construction d'un certain site, dont celui qui abrite notre cérémonie d'aujourd'hui. Je l'invite, au nom du président de la République, son Excellence M. Macky Sall, à apporter toutes les diligences requises pour mettre à la disposition des populations les décorteurs en quantité à un prix accessible à tous. À cet effet, je demande à la Société Télévision du Sénégal, bras technique de l'État dans la mise en œuvre de la TNT, de veiller partout sur l'étendue du territoire national à la disponibilité d'une bonne qualité de signal, tout comme des équipements de réception préalables indispensables au basculement dans toutes les zones du pays. Je salue le travail important qui est en train d'être accompli par dans la finition du réseau et surtout l'intelligence avec laquelle TDS-SA collabore avec la RTS pour les réponses adaptées aux difficultés rencontrées. Je salue, pour m'en féliciter, l'esprit d'ouverture et l'engagement total de la RTS et de son directeur général pour soutenir et accompagner la nouvelle société chargée de la gestion et de l'exploitation de l'infrastructure de la TNT. en donnant rendez-vous très bientôt aux populations de Thiès pour la prochaine étape de ce basculement. Je vous remercie de votre aimable attention.